est-ce que vous vous rappelez de l'histoire extraordinaire de Madame Brouette <laughs> ça fera vingt ans et vingt ans après Moussa Sène Absa est toujours là macha allah yàlla na continuer di ñu génneel ay productions yu extraordinaire vingt ans après euh, Rokhaya Niang est là euh, qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images-là <laughs> après vingt ans. euh, plein de souvenirs Pape Cheikh. plein plein de souvenirs. vingt ans après. Eh, am na ñoo xamante ne nekkatuñu ci àdduna bi ak ñun mm-hmm. eh, comme suma acteur bi policier bi léegi naago mm-hmm. génn na àdduna mm-hmm. eh, commissaire bi tamit génn na àdduna ki ci nekk sama papa père blanc aussi nekkatul ak ñun donc ak sama sœur Ndeye Khady nga xam ne dafa feebar donc souvenir yu bari yuy ñëwaat la mais expérience bu neex la tamit ci tournage bi parce que partagé nañ ay moments yoo xamante ne yoo xam ne mënu ma ko fàtte daal mm-hmm, mm-hmm. Euh, c'est vrai que métti woon na ndax euh, le personnage de Mati moo porté woon personnage film bi moo ko porté woon du début à la fin mm-hmm, donc je tournais tous les jours ba dimanche waaye c'était dur mais il paraît que Moussa Sène ab sa dafa dafa mais moom mais métti na perfectionniste quoi exactement exactement moom bu la téyee il faut mu am li mu bëgg ba pare mu soog lay bàyyi di nga tourner avant dina la téye nekk ak yow di wax di wax mais léegi man dama dem ba dem ko comprendre mm-hmm. xam naa lan la bëgg mm-hmm. donc euh, tournage am daal moom euh, métti na mais le fait d'être toujours choisi par un cinéaste bu mel comme moom euh, loolu lan la lan la la yàgg a def damay sant yàlla mm. toujours parce que nit boo liggéey ak moom ngeen cheminer pendant vingt ans. Mhm. dara ñaawu ci à chaque fois mu am projet. Mhm. xelam day nekk ci yow. Mhm. Moussa day toog bind scénario ba pare yónnee ma ne ma liir ko nga wax ma ci sa xalaat. ma wax ko ci sama xalaat. te bu ma ñëwee tam nekk ci plateau am di tourner. Euh, su ma toogee xool mu def dara. wala man man am proposition ma am lu ma war a tourner su ma ñëwee xool sama décor. Mhm. damay ñëw ba ci moom ma ne ko grand moi je pense que séquence bi nii laa ko gisee woon de. mu ne ma fay la comme tu le sens. Mhm, mhm. parfois mun na def mise en scène ma ne ko grand est-ce que affaire bi ñu ko defee nii. mu ne ma ayca donc il a confiance en moi. xam nga nit ku mel noonu mënuloo ko fay. ndax euh, koo xamante ne. da ngeen ànd euh, vingt ans. dara ñaawu ci. dara dara ñaawu ci euh, mu nekk suma kilifa nag. nekk suma conseil même tey bu toogoon euh, yëkkati téléphone am woo ma su ma waxee rek xam na ndax am naa problème wala aw ma ko. Mhm. su ma amee mu ne ma qu'est-ce qui se passe. Mhm. pour ñu waxtaan. Mhm. dafa ma jàpp comme sœur ma téye ko comme suma grand frère. tamit te lépp lu mu am day bëgg ma ñëw ndax actuellement dafa may jàngal ma passer derrière la caméra. ndax film bi di xale. Euh, ma ci rek comme actrice. dafa ma woo ci début bi ñu travaillé ndoo ma nekk ci équipe mise en scène bi. participer ci réalisation bi comme mm. assistante nekk aussi mise en scène exactement coacher tamit xale yi mm-hmm. encadrer leen mm-hmm. xam nga loolu ku la wóolu rek moo la ko mën a def loo mm-hmm. donc euh, dama koy sant toujours di ko gërëm sànq maa ngi wax ni euh, euh, festival yu bëri ci wàllu cinéma bu amee dañu lay woolu soit nga bokk ci membre jury bi wala nga bokk ci ñi nga xamante ni ñooy décider ci déroulement wu événement cinématographique yu mel noonu loolu itam qu'est-ce que ça te fait toujours nekk euh, jigéen nekk africaine nekk sénégalaise. waaw nekk nit ku ñuul. kooku fierté la toujours parce que comme li may wax man toujours dama mës a fonk sama sama sama bu ñuul bi. Mhm, mhm, mhm. nekk sénégalaise nekk africaine ba nga xamante ne fépp fu ñu mun ti génn sur le plan international. dañu ñuy naw. bu ñu génnee rek dañ naan Fespaco tout ça yooyu yëpp dafa dama dama mel ne ku bokk waga parce koo xam ne depuis 2003 yaa ngi fay dem. ba bokk ci festival yi may woo aussi. xam naa dañu am yaakaar ci man mm-hmm. tamit te ma am relation bu bari aussi sur le plan international am na ñu bari ñoo xamante ne xam naa leen ba suñuy liggéey mm-hmm. participer naa ci festival yu bari yoo xam ne membre du jury la mm-hmm. yenn yi ay Cameroun ak yooyu nekk naa si présidente jury court métrage ak partout dans le monde fu nekk foo xalaat ci àdduna rek ah. dem naa fa te ak madame Brouet tamit foo xalaat ci adduna rek dugg naa fa pour présenter film bi donc tey bu ñu ñëwaatee ak xale mais naka nga dundee woon polémique gu madame Brouet à l'époque xam nga euh, Pape man. Euh, c'est une production bu bëri woon coow ah. mais mais man xam nga personnage personnage la ah. man ñi ma xam dëgg. Hmm. Euh, parfois bu ñu ma gisee gis samay film sax dañ naan ma est-ce que yow la. parce que dama nekk nitu sa uh-huh. ñu bari dañ naan est-ce que yow la uh-huh. naka ngay def ba jouer yenn scène yi moo ñu jaaxal. Uh-huh. mais man je dis un travail c'est travail dafa mel ni mbubb bi may sol pap su ma ci paree simmi ko pare naa ci séquence ñu ne action mu bu ñu ne coupé fàtte naa li may tourné. kéwélo ma dellusiwaat sama bopp mbaay laa lay wax. <laughs> <laughs> tu as vu comment naka la ko xale y di ci euh, réseaux sociaux yi ci internet bi ak li nga lëmbal ak sa grand boobu bu orange eh géwéloo je sais pas si vous si vous savez mais <laughs> c'est elle hein Pape ci prix du pardon la bu ma sosolo waaw effectivement Pape te séquence bu méttee nga xam man mënu ma fecc sabar man bu ñi aw nii man maa ngi doon jàng ay maa ngi jàngi man affaire góor moo ma neexoon donc ma ñëw <laughs> euh, sabar bi ne ma kaay répété ma ne répété mooy lan waa ji ne ma non il faut nga ñëw répéter sabar bi affaire yi ma ne ko xola uh-huh. li may taasu wax ma ko naa ko jàng mais ni koy ni ma koy feccee doo ma ko wax. <laughs> boo ko tëggee ni ma ko sentir rek. <laughs> laay ñëwee parce <laughs> et voilà c'est une fierté donc xale euh, moom la ñuy waxtaanee euh, le prix du mensonge kenn bëggul euh, entre nos mains Molane à madame Ndiaré. Euh, tableau ferraille autant de production yoo xam ni def nga ko euh, Moussa Sène Absa euh, lan mooy sa secret longévité bi ak constance bi nga xamante ni moo ah, la première chose bi gën a am solo mooy liggéey mhm. sàkku xam-xam surtout sàkku xam-xam te y a pas pour sàkku ah, xam-xam amul amul âge man li may wax toujours même sumay sumay doom loolu laa leen nit ki man leen kenn rek laa ñee ci àdduna te mhm. sax du ñee admiration la mhm. mooy boroom xam-xam mhm. leneen leneen safuma mais boo amee xam-xam da nga may da nga may neex parce que damay xam ni yow yàlla moo ko may mais aussi surtout boo amee xam-xam nag ba pare yéene ku ñu bari comme ku mel ni euh, Jibril nga xam ne ndeysaan dafa dafa dafa dafa généreux woon ak man dafa dafa dama meloon nii vraiment rakam. Mhm. et puis euh, mais li gën a li ci gën a am kii mooy jub aussi. Mhm. parce que nit ñi kenn doful. Mhm. Euh, booy liggéey ak nit ñi da leen di jox seen place. ku ci nekk dinaa la jox cëram. même figurant bi nekk ci ginnaaw nga xam ni kenn du ko gis. am importance dinaa la may dinaa la jox cër ba nga mel ni yow yaay acteur principal. mais loolu euh, c'est une question d'humanité. c'est-à-dire nit ki booy liggéey moom jox ko loo xamee ni nii bu paree ci liggéey bi xolam day set. mais loolu lan moo la ko jox parce qu'il faut rappeler que à la base comédien nga woon. mais aussi. tu as commencé comme ñoom voilà avant nga nekk producteur cinéaste. Ah, parce que ñoom da nga nekkoon seen place. exact parce que ñoom. Ah. seen place dafa compliqué. Ah. parce que acteur dafa métti. tu as été acteur. acteur fa métti parce que acteur da ngay gis koo xamee ni. day day da ngay jël benn rôle bu métti nga jox ko ko hmm. par exemple nga ne ko. kii femme bi nii la meloon nii la meloon. moom melul melul noonu moom ci boppam de. mais il il faut que nga gunge ko jàpp tette ko. pour que rôle bi parce que par exemple le rôle bi muy joué ci xale. mooy rôle bi gën a metti ci. li ma ko jox pour mu liggéey surtout souvent quand rôle bi du méngoo ak réalité dëkk bi bokkul parce que bii dafa nekk jigéen joo xamee ne nii dafay dafa dafa xam li mu bëgg bee lépp loo xamee ni nii teg nga ko ci kawam dina am doole yoo xam ne dina ko dina ko génne mhm. non seulement dina ko génne mais dina la dina la wax aussi lan moo tax mu génne ko te lan lay wët nekk comme jigéen bu mën góor quoi lan lay wër ci àddunaam d'accord du du du euh, euh, parce que li may wax rek mooy nit ñu bari dañuy mhm. meeg dañuy euh, def confusion ci ay relations amoureuses mhm. parce que dama koy wax parfois gaañ nañ ma ma ma ne am na góor ñoo xam ne mënuñu nopp mm-hmm. am na jigéen ñoo xam ne aussi mënuñu nopp mm-hmm. am na góor ñoo xam ne mënuñ ñoo yore jigéen mm-hmm. euh, wala dañuy yàq jigéen euh, mais li gën a am importance ci moom ay rôle am c'est loo ko loo loo loo bind jox ko ba mu li na ba waaw bis bu ngeen toogee ci plateau defe ko ni nga ko bëggee daf koy def ba nga ni non non xanaa du kii. macha allah donc li am importance dans le jeu. Mhm. mooy confiance bi une relation de confiance. Mhm. une relation de confiance boo xamee nii da eh, par exemple damay bind ay rôle yoo xam ne nii bon y a une scène de y a une scène. y a une par mhm. exemple. Mhm. Mhm. mu ne ma mais mais. c'est pas waa mais grand lii nan lañ koy def man ko noonu fekk bàyyi rek. man xam naa li may wone man. bu ñu paree. dañ bis boo ko seetaanee. da ngay siggi. du def mukk loo xamee nii boo ko seetaanee ak say waajur wala nga seetaan ko ak say xarit. da ngay rus nga am gêne déedéet dama lay defal loo xam ne nii képp ku taxaw ak koo man di àndal foo man di toog bu ñu wonee scène bi da ngay yëkkati sa loxo ah, donc li am maanaa ci film bi mais mais dafa nekk film boo xam ni c'est très important. Mhm. parce que euh, euh, film la boo xamee ni dama ko yàgg dama ko yàgg bëgg def. mais comment est né ce projet. pour parler alors, maintenant de alors, de, de, de, alors, vraiment du film. na a la naka la projet bi euh, projet bi juddoo quoi xale. Hmm. man li ma gënoon a marqué ci suñu société mooy am na benn violence. Mhm. boo xamee ni. dafa am ci jigéen ñi surtout ci xale yi. damay dama daan seetlu bu boo xoolee journaux yu bari danga daan gis ay viol xale yu tuuti ñu ñuy violé kenn moo leen di violé seen papa am na kan moo leen di violé seen nijaay kan moo leen di violé seen dëkkandoo kii mm-hmm. ki euh, luyaas bi nekk ci kër gi kan moo mm-hmm. leen di violé ki leen di jàngal mm-hmm. donc damay damay toog seeg ma ni mais man lan moo xew ci réew mi alors loolu mooy loolu mooy loolu mooy élément bi njëkk. Mhm. dama bindoon nag il y longtemps dama bindoon benn benn benn scénario bu tudd Joor. Joor mais dama ko dama ko tegoon fële ci côté. Mhm. benn xale bu góor bu ñuy wax Mandir mooy ñëw benn bis andil ma benn texte. Euh, euh, Adama et Awa. Mhm. ay histoire ñaari cheikh. ma lire affaire bi ma ne mais ça ça m'intéresse. mais il faut ma bind ko ak ay un œil de scénariste. Mhm. ma woo Ben Diogoy Bey. Mhm. nga xam ne c'est un grand scénariste. woo Pierre Magny. grand scénariste canadien qui a été mon assistant dans Madame Brouette. Mhm. on a travaillé pendant six mois sur le scénario ñu liggéey ci. mais li gën a am ci film bi mooy aussi casting bi. nan nan la nan la ko yàlla parce que yenn yi parfois du ma ni sax man la xam nga alalu jinne bi ñu doon wax rek. Mm. yëfu yëfu jinne la affaire la rek. man toog naa ba si yàgg muy wër ma ni mais kan mooy jouer role bi mm. awa kan moo koy jouer mu film bi pare na lépp pare na mais mënu ma xam. kan benn jour wallaay laa dama toog ñuy may def benn atelier centre culturel français. Mm-hmm. gis benn xale bu góor ak benn xale bu jigéen. Mm-hmm. ñu ngi bokk ci sama ci atelier bi. ma leen di xool ñuy ñuy fowee ñu ñuy àndee ci ci ci ci ci atelier bi ñu def benn scène benn benn film bu ndaw ñoom ñaar ñu joué ko ma ne ñaari ñaar gi waxuma leen dara comme ça dama toog ba si yàgg ma yónnee leen scénario bi ni leen waa lire leen nii ngisali yàlla dafa daf ko may benn kii dafa dafa un dafa tuuti mais mais un mais aussi dafa sob dafa sob et puis am na benn am na benn doole boo xamee ni ci ci ay bët parce que euh, acteur bët la. ah bi bët la bët moo ci ëpp ëpp maanaa euh, dans le regard. Ah ma xool ko benn jour ak benn jour ma gis ko muy muy tooñante xal yi ma ne ah. ah. waa jaa ngi <laughs> donc yàlla day def nag <coughs> alalu jinne bi ñu doon wax rek. Mhm. prévoir ko woon de. Mhm. mais yàlla moo ko teg ci sama yoon. Mhm. Euh, andil ma ko ni ma Moussa jëlal li damay wax damay faral di wax samay euh, étudiants yi nee na man duma def film film moo may def ci man. Mm-hmm. Mm-hmm. je fais pas les films les films se font en moi. Mm-hmm. damay damay bind benn histoire mais histoire bi li ci gën a am importance mooy euh, table ferraille affaire affaire jaasir euh, polygamie. problème de société problème société ak kii yu bari. madame Brouette. Euh, euh, c'est une quête d'amour une une une quête d'amour mais bii dafa nekk dafa boole yu bari mm-hmm. xale dafa boole euh, innocence mm-hmm. boole courage courage jigéen mm. parce que man damay contre toujours gars ñi naan ah ji en Afrique jigéen ñi machin man ni muy yéen yéen kon xamu leen affaire bi nan la demee ma ni leen euh, ñoom doole doole gi euh, ñu àndal tubaab bu jigéen sax amu ko do non ah. doole bi ñu bu ñu doon calculer nombre de heures yi jigéen ñi liggéey par ah. bis ah. ah góor ñi liggéey ñu xaaj bi dëgg la dëgg la ñoom liggéey par bis. Mm. boo compté ba léegi. boo boo compté heure yi. Mm. c'est presque le double. Mm-hmm. donc. Mm-hmm. Euh, trilogie bi dama ko bëggoon a fermer ci benn avec une note d'espoir mais aussi avec une note de vérité mm-hmm. un plaidoyer pour la la la la valorisation de de cet acquis féminin. Mm-hmm. Euh, sans être féministe. Mm-hmm. mais être plus un humaniste. parce que un humaniste mooy euh, euh, jigéen jigéen la. góor la ku ci nekk am nga am nga rôle boo xam ne ni da koy jouer ku ci nekk am nga benn place ñoom ñaar ñoo ànd ni ko ni ko eh, eh, dañu war a booloo pour que àdduna bi gën a gën a naat parce que loo gis rek dafa am loo xamee ni moo koy moo koy naatal te li gën a li ma gën a amal eh, njariñ ci film bi mooy première fois Sénégal ñu jël fonds sénégalais FOPICA Euh, direction du cinéma. Mm-hmm. ñu jël euh, benn commission ni film bi dañ koy jox lii film bi dañ koy jox lii film bi dañ koy jox lii ñu seet ba seet ñu ni nag ñun dañ koy def mais dañ ko bëgg a def ba nga xam ni. Mm-hmm. ñun ay Sénégalais ñoo koy def. ah parce que souvent fonds yi bitim réew la daan jógee. dañ ko dañoo def ba pare en fait dañoo tourner ba pare les Ivoiriens son rentrés dans le coup. Mm-hmm. Euh, ñoo ñu tam def liggéey bu rafet. Mhm. Mhm. producteur bi Laurent Béti euh, démb la fi jógee. Mhm. Euh, euh, après saoudiens yi ñëw avec une petite somme francophonie ñëw ci Canal Plus dugg. donc finalement film bi moo defar boppam. mais li gën am maanaa aussi mooy. xale yi ci liggéey. Mhm. ay xale yu ndaw ñoo def film. te Sénégal dafa bëri ay talent en termes de euh, réalisation technicien mënoo ko mënoo imaginer oui et puis l'amour man ci xale yi liggéey ci télé bi laa ko xamee. c'est des réalisateurs yu fi liggéey ah, ah. mais ils font des documentaires. am qualité amour du métier mon petit réalisateur là Pape Samba le petit Passion. il fait des documentaires. je pense à Ndiaga Fall je pense vraiment ces jeunes. yu leen di toppandoo en fait bëgg mel comme parce que ñoom. dañuy euh, bu la yàlla mayee nga am euh, yenn histoire yi. Mm-hmm. muy suñu histoire cinéma. Mm-hmm, mm-hmm. may may may may ci profiter aussi di wax nii ñun. dara jomb ñu ci cinéma. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. cinéma fii. en Afrique dara yomb jomb. dara jomb lépp lu ñu bëgg a def war nañ ko mën def. parce que dafa am benn mandarga. boo xam ne nii Sénégal rek moo ko am ci àdduna bi. wala du du pour parce que sénégalais laa nekk de. mais dama xam cinéma. mais soo ko waxee ñu gëm ko par rapport benn mandarga senegal dafa am mandargaam. màndarga bi. boo xoolee ci jibril gis ko mhm. boo xoolee ci semben gis ko mhm. boo xoolee ci benn gis ko mhm. boo xoolee ci johnson gis ko william gis ko boo xool ñoom ñëpp ku ci nekk boo génnee sa film boo ko tegee day day def benn day day am benn retentissement boo xam ne ni yeneen film yi duñ ko am kooku ci suñu ADN la bokk. Mhm, mhm. ci suñu ñun ni ñuy raconter histoire. Mhm. ak ni ñeneen ñi di raconter histoire bokkuñu ko ba tax na euh, film bu mel ne euh, xale dafa dafa dafa dafa jël ci ñu bari. dafa mel ni daal dafa dafa mel ni benn éponge. bu ndox tuuru fii diwlin tuuru fii. meew tuuru fii dana tuuru fii nga jël éponge bi rek boole lépp. c'est un vrai artiste ah. et puis boole lépp. <laughs> invité nga am bi <laughs> invité nga am de invité bu mag. je connais les enfants dama xam ay doomu doomu euh, ay doomu Johnson Traoré. Ah, mais c'est ah. tellement passionnant. ah bu lay nettali seen papa artiste bu mu ah, nekkoon. moi j'en rigole. grand bonhomme donc un grand bonhomme. un grand bonhomme c'était un grand bonhomme. un grand bonhomme. Traoré je t'embrasse. un grand bonhomme gentleman gentleman voilà gentleman vrai gentleman. mais mais mais xam nga lu neex aussi ci plateau Moussa mooy comme xale bi ñu koy tourner. xale mais booy xool post bu nekk am na ay stagiaires yu bari yu ci ñëw. dafa jël xale yi nga xam ne dañu nekk ci yenn écoles yi. di jàng. muy invité semaine bu nekk am na ñoo xam ne ñoo war a passé une semaine dem beneen ñëwaat pour ñu assister. ci poste yëpp pour mun a xool pratique bi ah. naka lay demee si sur le terrain ñuy jàngaale. Mm. loolu am solo la. Mm-hmm. te ku ci nekk war na ko def tam pour dimbalee euh, la jeune génération pour que ñoom it ñu mun a mm-hmm. ñëw am lu ñu mm-hmm. taataan ci ñoom. te mu nekk aussi ko xamante ne ku fidèle la ci ay acteurs am. Mhm. parce que boo xoolee filmam yëpp koo gis ci film bi di nga ko gis ci yeneen filmam yëpp mhm. moom dafa fidèle dafa fidèle ci ay nitam waaw mhm. et puis j'ai remarqué que ku spirituel il est très spirituel ah, ah, voilà il est très spirituel euh, on va regarder euh, bande annonce euh, bu xale après di nga ñu wax pourquoi mu nekk trilogie voilà ñu def ko ci ñetti pàcc pourquoi continuité bi ci benn histoire regardez la bande annonce Euh, trilogie la en salle et puis euh, Rokhaya wax na ko sànq dem ba toll foo xamante ni parce que bu njëkkoon euh, production yu mag yi. bu ñuy def lancement bi genre France moo koy njëkk a def. Mhm. Angleterre def ko. Mhm. États-Unis def mhm. ko après quelques mois ou souvent quelques années. après Sénégal doog ko def mais pour cette production on a cette chance d'avoir une diffusion internationale. Uh-huh. peut-être au même moment. exact exact alors l'idée l'idée de ce film c'est vraiment de faire. un produit sénégalais. ah un produit sénégalais pour boucler euh, presque trente cinq ans de cinéma. Mm-hmm. Euh, trente cinq ans de cinéma Tableau Ferraille Madame Brouette et Xale. Taranga Blues. Euh, Taranga ah. alors et arriver à faire ça parce que Xale dafa nekk film boo xam barki démb dama ay ay xale toog. cinéma pâté cinéma pâté ñi ma leen di tooñ ñi naa xam naa ni yéen ki yéen ki ngeen di seetaan si. Euh, maîtresse d'un homme marié. Black Panther kii ah, Black Panther Black Panther Black Panther ngeen <laughs> euh, Black Panther la mm-hmm. après on a commencé et je l'ai dit mais en fait. Euh, c'est bien beau. Mm. Euh, j'adore ces films de Marvel. Bah oui. Mais regardez, regardez xale. parce que xale ah. vous parle xale ah. est fait pour vous am nañu suñu yëf quoi xale c'est euh, c'est c'est en tout cas euh, tout le monde le dit mm. c'est pas moi tout le monde dit que c'est ton meilleur film ah. tout le monde dit mais Moussa c'est ton meilleur film à regarder par force et <laughs> il faut que tout le monde regarde ça et c'est euh, bon j'aimerais bien que tous les Sénégalais tous les Sénégalais aillent voir ce film mm. parce que un on parle beaucoup de violence mhm. ces temps-ci mhm. des femmes mhm. sur les femmes il y a je, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux toute une discussion mais le film est là ce film là c'est tout c'est-à-dire ça parle de la place de l'homme dans une société de de la fragilité de nos relations qui sont des relations parfois complexes mais des relations que mag ñi dañ ko daan gérer mais li ci gën a neex aussi mooy dañu bokk dafa dafa dafa nekk film boo xamee nii euh, euh, dafa am dafa jël benn direction. Hmm. direction bi mooy lan mooy xale yi seen place ci société bi nan lañ ko mën a jëlee ak ban ban ban bët la ñuy xoolee société bi. Hmm. ak xam nga dangay gis benn xale bu jigéen mu am 15 ans. Hmm. di solu solu kii maquillage xam nga xam nga ado rek solu foo ko fekk mu ngi mi ngi bëgg a rafet ba parce que dafa bëgg dafa bëgg ñu koy dafa bëgg ñu koy soxla attention ñu koy apprécier di ko rafet du pour du pour du provoquer kenn mais loolu mooy problème mu société bi parce que société bi day xool xale yu jigéen yi parfois comme ay jigéen dañuy fàtte ne ay xale lañ dëgg la te xale dina dem benn moment boo xamee nii foofu moo gën a dangereux nañ ci ci mm. kii nag adolescence mm. vers les quatorze quinze ans ah. nga xam ni surtout qu'elles sont voilà elles ah, sont ah, précoces da nga yaakaar ni jigéen te fekk ay xale lañu loolu mooy indi erreur yi tout heureusement que c'est dans le film tout mais c'est ça le film parle de ça mais gis ko am douze ans tollo par exemple exact boo gàttee xel da nga koy jàppee jigéen bu mat ah, ah. fekk matul matul matul ah, daal xel mi xel xale bu tuuti la effectivement mais nag c'est là où le la chose est plus très importante parce que c'est en fait un moment de découverte de sa propre personnalité et de sa féminité c'est là où la jeune fille qu'elle commence à se découvrir apprécie mm. aussi la société et les regards de la société foofu lay gën a xame ni nag ah lii de lii de vraiment war naa ko def lii war ma ko def mais su fekkee ni mag ñi dañu koy bëmëx ki loo xamee ni yeggagu fa ah ngi mel ni rek euh, xale bu tuuti nga bëmëx ko day daanu c'est sûr c'est un beau film en tout cas. on va vous donner euh, dinaa leen jox léegi nii euh, date de diffusion yi en salle. pour vous euh, ngeen dem seetaani ko heureusement ba euh, ñun yàgg nañu kaas di jàmbat ni amuñu ay salle de cinéma. Mhm. rappelez-vous à l'époque à chaque sortie de grands films nous autres dañ daan dem di rang mhm. cinéma le Paris par exemple. Ah. on gagnait même des euh, tickets d'entrée dans les salles de cinéma à la radio. à mhm. l'époque c'est pour ça que des fois on a l'impression que Sénégal démb la neexoon. mais bu ñu ko mënee neexal mën nañu ko neexal alors ce film disponible actuellement mën ngeen ko seetaan. Euh, dans beaucoup de salles euh, fii ci euh, Sénégal avant de vous donner date de diffusion yi ak heure yi nga xam ni mën ngeen ko dem seetaan en salle on va retrouver deux jeunes parce que actuellement le monde des jeunes c'est les réseaux sociaux ah TikTok mhm. Facebook <laughs> Instagram voilà alors qu'est-ce qui se passe euh, dans ce monde-là ce sera dans le journal du web ak Mamadou Ndiaye ak Méri Bey Diouf li xew biir internet je ne les vois pas encore voilà euh, ils sont pas la là ils sont là je ne les vois pas ana ñu Mamadou Ndiaye Merry Beye dama leen bëggoon. voilà nous voilà dama leen bëggoon may rek ngeen waxtaan ak euh, Moussa Sène Absa. sa si amul leen chance bi yéen xale yi. toog ak Moussa Sène Absa. mais gis seetaan nañ ko toog mais damay xale yi seetaan nañ ko ci YouTube bi. oui mais ay xale ngeen. <laughs> est-ce que je sais pas yéen a ngi yëg. Euh, passion bi ma am ci di waxtaan ak moom. mais dafa dafa dafa feeñ El Hadj. gis naa gis naa mbégte bi nga am mais fierté surtout bi nga am ci waxtaan ak moom. Ah fàttaliku ay ah ah tableau ferraille. ñun ñun quand on tout petit là. ay xale ngeen doon xale yu ndaw góorgóorlu. loolu laay. mais c'était un rêve c'était un rêve de le voir et de de parler avec lui man sànq entrouvrir naa bunt bi. mais j'étais un peu intimidée donc. nuyu da ngay rus quoi. <laughs> mais macha allah mën nga leen xool sax ñu xaw a ñu xaw a bizarre mais ay âme d'enfant la ñu. oui cest à ah boo ko jegee nga xam ni xale la jusqu'à ce que ma je me rappelle temps wu euh, temps wu tableau ferraille. ba mhm. ci temps wu góorgóorlu. dañ doon imaginer sax quartier bi nga xamee ni foofu lañ doon jouer euh, euh, euh, production yooyu la yooyu noonu quoi créer des des des quartiers ou ay dëkkuwaay imaginaire mais surtout effectivement El Hadj bi ñu ñu nekkee xale quartier góorgóorlu bi ñu ko doon jouer mm. dafa nekkoon benn quartier boo xamante ni dafa doon des dafa des suñu bopp ah, ah. saa yi ñu rombee dañ naan ñu fii la ñuy jouer góorgóorlu ah oui quartier bi la donc tey waxal xale yi ñu def hashtag xale Moussa seen absa absa surtout surtout ils nous ont donner l'amour de du du cinéma sénégalais parce que léegi bu ñu ñëwee. bu ñu bëggee prétendre di wax ay séries wala ay téléfilms sénégalais. c'est parce que ku mel ni moom daf fi daal di jaar donc euh, voilà c'est un honneur te on lui souhaite encore beaucoup beaucoup de projets yoo xamante ne dina si am ay raaya yu mag a mag a mag. amiin amiin bon ben c'est et wax leen xale yi aussi euh, euh, dinañu diffuser film bi tey 13 h Mm-hmm. dina am diffusion tam 15h40. Mm-hmm. dinañu ko diffuser aussi 19h50 euh, canal euh, au Pâté Dakar. Pâté mooy seen cinéma bi ngeen jël. waaw ah et puis demain mardi <laughs> euh, dina am diffusion 13h30. 15h40. ak 19h50. effectivement mercredi aussi dina am diffusion 10h15. 17h35. ak 19h50. incha allah c'est-à-dire ni ñuy dawee di xëccoo. Euh, ay filmu Marvel. Uh-huh. nañu daw di xëccoo pour seetaan en exclusivité xale production cinématographique yi nga xamante ni suñu cinéaste yi ko def. Canal Olympia voilà toute la semaine. Ah. on peut aller regarder. et puis Rokhaya Niang aussi Mamadou Ndiaye tu euh, xamoon nga ni basketteuse la woon. non non. kii basketteuse bu mag la. ah oui ah oui <laughs> mais macha allah. j'en sais des choses ah moi. mais macha allah mais ba tey ah, gis ngay vidéo bi TikTok. Gélo. doon eh, eh, <laughs> TikTok. doo ko génne eh. TikTok boobu quoi. <laughs> oui oui boobu il faut ma set ko ah. voilà set ko nga génneel. oui il faut ma set ko loolu. mais TikTok ko ñu partagé ko balaa ñoo TikTok nañ ma lu métti. je te jure lu métti damay toog rek gis kenn envoyé ma affaire may rek ma fas ma fas sama kanam. <laughs> man Béthio bee ko bi ah, Béthio. allez je vous laisse soin. Mhm. ngeen wax ñu li xew biir internet. Mhm. juste après on revient ah, euh, pour la dernière partie euh, Moussa Sène Absa ak Rokhaya Niang ñooy suñu invité tey ci Midi Plus ci télévision Futur Média. Mhm. évidemment première télé fii ci Sénégal.